Kër Massar Kama mu leen di nuyu réew mi fi mu tollu dafa soxla ku xam askan wi dafa soxla ku bëgg askan wi dafa soxla koo xam ne kii du jël alalu askan wi di ko jëfandikoo pour boppam senegal dafa am juróomi góom góomu góo mu jàng góo mu ñàkk góo ñàkk karange ak joo mu ñàkk faju waaye nag Sénégal am na docteur kan mooy docteuru Sénégal ma ne dégguma leen de ma ne docteur nu muy def day jàng am xam-xam dafay yaru dafay teey dafay bëgg réewam mane ne te du sàcc alalu réew ma ne est-ce que bukki dinañ ko dénk seel ma ne est-ce que bukki dinañ ko dénk seel ah def leen attention man nag li ma naqari mooy xaalis bi ñu dugal yëpp ci réew mi di ci sonn dañu njëkkee-jékki rek gis ne am na benn catégorie ay bukki ñoo koy jël di ko lekk ñu ne noonu duñ ko nangu est-ce que yéen di ngeen ko nangu golo di béy baabun di dundee mais duñu ko nangu pour dafa nekk place boo xam ne bii bu ñu liggéeyee senegal rek faj góomu senegal rek bu ko buggee liggéey rek ci buut lañ koy nattee ñëpp xam nañu ne avenir u Sénégal avenir région de Thiès buut la sama projet mooy capital bi nekk Dakar ma indi ko cees kon nag bu ma ko indee Thiès indi naa ko Mbour léegi nag li xew ngeen war ko xam mooy Sénégal dafa am juróomi góom juróomi góom yu métti xam nga lu koy faj cinquième président de la République juróomi góom cinquième président léegi nag pour faj ko nu ñuy def déglu leen ma bu baax pour faj ko dañuy jéngu boo ko defee lan mooy xew xel yi dal xol yi féex poos yi xel yi dal xol yi féex poos yi fees xel yi dal xol yi féex poos yi